Rixel, Senri d'excellence, Punch, boisson gazeuse bi gën a Trading ak établissement Mame Balla Ndiaye di may Sen sketch Abou Bilal. Assalamu alaikum yi tey ñu def ben expérience ngir wan gëne lu ceebu Rixel Bi, ceebu importe bi la bii ceebu Rixel la ñoom ñaar ñëpp ñu togg len ñank tag. ndox mi ngeen di gis dañ ko tangal à 37 degrés Celsius muy température suñu biir yaram léegi. ñu tibb ci ceebu importé bi tibb itam ci ceebu Rixel bi léegi nag mbokk yi ñu taxit lu 30 minutes ceebu importé bi fa mu nekkoon jógu fa ceebu Rixel bi moom rees na bu yàgg lii xew fii nag mbokk yi mooy xew ci sunu biir ceebu importé bi ceeb bu màgget la te lu muy gën di màgget suukar si di gën a bari mën ñoo indil ay jafe-jafe ci sunu wér-gu-yaram ceebu Rixel bi ceeb bu bees la woyof na digeste na te ci àllu bii lañ ko béyee ngir suñu jàmm ak suñu wér yaram nañu jëfandikoo Rixel Rixel bëggal sa bopp. képp ku bëgg a distribuer ceebu Rixel mën nga woote ci 78 178 86 86. Punch punch. Punch. Punch, une boisson si rafraîchissante que personne ne peut s'en passer. À la fin d'une dure journée, je pense tout de suite à Punch, la boisson au goût unique qui me revigore et me redonne le sourire. Variez vos plaisirs avec Punch orange, limonade, cola, mangue, grenadine, pomme et anaco. Punch renforce la teranga sénégalaise avec le grand format de 1,50 litre pour satisfaire toute la famille à seulement 500 francs CFA. Les 0,25 litres vous sont offerts gratuitement. punch, c'est ma dose de fraîcheur idéale, surtout par les moments de grande chaleur. Tout le monde adore punch. Une boisson si fraîche et si délicieuse que personne ne peut y résister. Punch Mettez du punch dans votre vie. Punch. société Chez Mbacké trading Molen indil poudre magique sourire muy premier dentifrice en poudre du Sénégal di weexal Tal seeni bëñ jox mante gu neex indil na leen ceinture ak crème amaigrissante nature glow ngir wàññi seen biir wala seen yaram pour góor ak pour jigéen bu ngeen bëggee biir ceinture bi moo ci boude a gaaw waaye bu ci yaram crème amaigrissante nature glow poudre magique sourire à crème amaigrissante Nature Glow à me fait petit Sénégal Kikofi indi Moi société Chez Trading centre commercial Touba Sandaga troisième étage water 77 093 56 56 ou le 77 093 57 57. di jël sama alal di ko séddale ci koñ bi ku mer ma jubale. waaw ëpp na ëpp na ëpp na ñaar ñu ànd ma dajale. dàq seytaane. tabax jàkka. jàppale juma. jubale xale yi. utal ñuy liggéey. ma ne foo bi toll. fexe nit nit ñi wax dëgg tey moytu fen def nga ma roy di jàppale ñu amul di dimbali ñu yàq. ak jikko yi ku ko yor laxoo nga mën a jiite.

mu ngi wax ko doful ngeen ne fi naan day sport xool leen ko. xam nga gis nga gis nga nasaraan bi dina ràññeeku. waay laa ilaaha illallaah alhamdulilah rabbil alamin ah, ah. day yomb. Ah. ab koor bu ñëwee. doo toog sa kër rek taal sa climatiseur wala taal ventilateur ngelaw bu ñu la ëpp. coono koor. mooy tax sa tiyaaba gën a yokk mm. da nga koy yëg ba pare boole di yëngu yëgay tax nga yëngu absolument boo yëgul doo yëngu <laughs> te koor da nga ciy jaamu suñu borom mm-hmm. maanaam jóg di dox yaa ngi dégg yëngal sa yaram mm-hmm. ñàkk liggéey waaye toog ci grand place hmm. yor sab sott xaar tuf wax waxu jàmbur loolu daal wax dëgg yàlla du war a fi koor ah, man moom damay entraîné bien dit damay entraîné dukk dukki di entraîné bay xëy maay woor war a yaay woor maay woor war a yow yaay woor sama koor yàlla koy noté yow noté woo ko maa tey waa <laughs> bu loolu weesoo ma ah. leen rey ndax ñun ñëpp jaar nañ ci. Hmm. maa leen gën a dëgër fuuf te yéen a ma mag. yéen a may hmm. waaw hmm. na ngeen moytu. parce que jotaay yi ngeen di def nii sax du jotaayu kilifa. ñu nekk ci jàkka day julli ngeen toog fii rek di wax waxu jàmbur. li ma jaaxal nag ci jàkka koñ bi laa bëgg ñu waxtaanee ko. benn koñ juróom ñaari juróom ñaar ba juróom ñetti jàkka. jàkka yoo xam ne da ngay dégg ñoo la jàkka murit jàkka tijaan. jàkka laayeen. ah jàkko xaadar man ma yéem man ma ne jàkk yooyu yëpp nag boo ci jul demal jàkk tijaan nga jullee eh, waxoo dëgg fooy eh? eh? waay yow murid jàkk tijaan la war jëpp murid fu mu koy teg ban dëkk bi ban dëkk bi féete penku booy julli fooy féete du penku ah, ma ne bon demee koy tijaan ma ne ba maa la ko wax loo ko jëmal ak jëmal sa yow ma wax da nga da a nga a ñor di jëmal sa bopp ma waxee dëgg boo bëggee peex ne foo jëm fan nga jëm ba bëgg climat baax foo jëm taal sa waar ci laayeen nga jëm jàkkee laayeen lañ la wax xamal bu ngeen waxee la wax jeex na gi jàng ñu uuf la waaw yow nga naa ma la murit gii daal bu la fi tiijaan waaw waaw yow kii jàkka kii jaan moo kii waaw ah, ñun ñoo fi door kër sama wasi fay abu bi demal jàkka tiijaan man de tontu bi leerul ba tey waaw xëccoo bi daal moo bëri waaye tontu bi leerul seen wax ji sax damaa bëgg mu dakk laa munul dakk laa eh, non mbay eh, mbay eh, sëñ Mamadou Fara mbay mbay mbay tenez-vous bien sëñ Mamadou Fara mbay tenez-vous bien mbay mais mais c'est quoi mbay mais mais tenez-vous bien mbay mais c'est quoi ça tenez-vous bien mbay ah

booy julli demal si jàkk ji nga xam ne mooy jàkk yàlla suñu borom nga julli fa mais bul dem ju julli si benn jàkk joo xam dañ leen naan jàkk diw sangam et eh bien jàkk et eh alors jàkk Dieynaba Ndiaye ou bien jàkk Marème Ndiaye fii déggoo ak tijaan lan fa xam non non non waaw déggoo fi diw non voilà léegi nag loolu moo dul yoon loolu yoon loolu moo ne loolu bi nga xam ne dañ koo tax dafaax dafar muy jàkk joo xam ne jàkk yàlla suñu borom la booy julli nga dem julli foofu ndax boobu jàkk julli yëpp ñoo ko moom mais you Samba. non non si non c'est mais c'est sur internet c'est sur internet c'est sur internet internet a un internet pouvoir

ne ci jàkka doo arrêté lii. ah wax dëgg yàlla. faut m'excuser mais ah waxtu bi jot na waaw waaw waaw ayca gars yi dañu jël waay dañu jël waay ah bon sax day bàyyi boobu rek. déedéet da nga da nga da nga. ah ah. su fekkee da nga da nga ji jox ko. bisimilah. dafa leen sàpp yi te raxam. ba ba ba mag ak mag. léegi nag su ma romb. ngeen may portable.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

gi lan moo tax ñu julli mu dagg julli gi julli julli gi dem ah man nag yow damaa jaaxal dugal nga dayo loolu moom lu ma lu ma jaaxal ma daal di ko nekk mu ñëw fi ndax li mu def dafa arab ah loolu waaw mu wax ñu lan moo tax waaw boobu kay mu ko daggee dafa gaaw waaw sëñ ngeew waaye ngeew waaye ku nekk na ngeew waaw waaw may ngeew manaa boobu daal maa lay woo may maa ngi lay yuuxu boobu léegi waaye yow ni nga génne ñaaw la ah nii kenn du ko génne

Bobo n'a pas ce pouvoir. Un pouvoir de discernement entre le cognitif et le cognitif. Les bonnes manières. Hein? nekk milieu public. waaw nga nekk fa xamoo ndax da ngaa feebar xamoo ban feebar nga yor. waaw waaw hein? et puis sans mouchoir sans mouchoir li gën pire mooy sans mouchoir. waaw mais boo sojee nga nekk si jàkka yoral ce mouchoir hein mais le mouchoir tu es ah, j'ai fait j'ai fait la remarque Il mouchoir ah, ah, imam mais t'as pas de mouchoir t'as pas de mouchoir Abou Bilal t'as pas de mouchoir hein? mouchoir vous c'est quoi ça Faut que nous

sumane mu jàkkee laa ñëw yow kay laa ñëw bu dul non kira dinaa ñëw dinaa ñëw dinaa ñëw su may ñëw non dinaa ñëw maro voilà su may ñëwati bu fekkee mënul am soir man ngeen nah, ah. utal ma sama coin boo xam ne la man yow mën naa di julli à ma manière à ma façon loolu amu ci droit voilà très bien léegi maa ngi que que bonjour. Hein. Oui. kon yaa waxtu bi tey waroon na jot sànq ba tey alhamdulilah voilà léegi dama bëgg ñu ñu réglementé suñu jàkk ah ñu réglementé jàkk ji def si def si ay normes def si euh, hygiène de vie Euh, ndax suma mbokki espagnol yi dañu naan vivir es natural pero saber vivir es arte maanaam vivre c'est naturel mais savoir vivre c'est de l'art parce que kii il met le bordel dans la mosquée hmm. mais nan ngay sojee nga xam ne war nga mën a wàll nit ñi booy ñëw mais le minimum nga yor mouchoir. man ko eh xool boo ma nee c'est le bordel mu bordel. mais si eh, mille watt mille. si tu mets la porte. et puis désormais lu ma siy jël jël naa ko si yow. Hein. Euh, non lu ma ko si lu ma siy jël jël naa ko si. bu fi kenn tegati tànk si jàkka ji te amoo mouchoir même yow Abu Bilal amoo mouchoir imam mën naa ko comprendre parce que au moins mu ngi écharpe mais bu sojee wala bu buggee kii. man eh yow dimbali ñu nga naan mouchoir. kanaan fii si néegu baay. wala si néegu ndey. waaye yow néegu yàlla ngay. boobu moo nekk ci dëkk boobu eh. nekk ci dëkk boobu eh, nekk ci dëkk boobu nekk ci dëkk boobu nekk ci dëkk boobu nekk ci dëkk yàlla ci dëkk fii de nekkul ne. wax na dëgg wax na dëgg. waaw waaw yaa ngi ci dëgg. booboo de. yow yaa ngi ñëw sax say katam yi wax na ko ngay. dund ah, bi xam ndax dara say dafa ah, sell. ah ça lay kam. wax na dëgg wax na wax sax. en tout cas. Eh, booboo. kaw ma kaw ma kaw ma. waaye mu kaaraat. mais si il mérite eh, eh, il mérite de porter.

voilà léegi moom comme dem na non non euh, Mbaye moom il est contagieux daf ñuy wàll mën nañu contaminer et puis xamuñ genre saqatam bi xamuñ lan la xamuñ lan la vous aussi ah voilà léegi benn nag rëccul maa ko bëggoon dàq pour ñu profiter parce que heure bi jot na voilà mais si léegi nañ leen julli avant muy ñëw dañ leen julli baax na ah, ah, ñu ko doxalee noonu de waaye ma nga dem nga ñëw di leen di bëgg leen yaa doxal ah loolu dem en tout cas il faut aussi penser ah vraiment Buenas noches, querido hermano. Buenas noches, hermano. Compañeros y amigos, aquí estamos. Guau, imam, man de la Tak sa nag ba pare soko dem julli ji wala julli ji ba pare soko tak sa nag laaj bobu la bëggon nga leral ko tak sa nag ba pare soko ñoo julli ci wala nga julli ba pare dem tak sa nag ban mo ci farata buena noche querido hermano. buena noche. xam nga question am na lu liggéey tamit. du kita nag question bu la ñëw da nga tontu. ndax téere yaa ngi.

comme peul bi nga xam ay nagu yar juru yar ah non non non non non da ngay ñëw julli mais bu fekkee nagu xew la da ngay yew sa nag ba pare ñëw julli ci sino bu ñëw julli da lay jaxase da lay perturber mais par contre kii li mu def tegu ko si yoon. parce que mom yarul nagu xew ay nagu jur ay yar yoy non la yor. Hmm. la c'est ça la différence. ah xel de nangu na ko. Mhm. yow sa xam-xam bu wër di nga wax foko ko ak ku la ko wax. <laughs> mais je l'ai lu sur internet. Ah mais si. Internet. Mais bien sûr. Internet, euh, en fait, euh, euh c'est devenu euh, un moyen de communication indispensable, mais fondamental vous savez, euh, à travers euh, le travail à distance, je suis enseignant au Sénégal, mm. Mes professeurs mais professeur en Espagne, je suis bureau, moi, je suis espagnol, mais mm-hmm. à Belgique. Je suis enseignant signature par mm-hmm. exemple en mm-hmm. Espagne mais dama koy jël euh sans déplacer loolu mooy mooy mooy gëstu googu moom la jox bibliothèque numérique internet bibliothèque numérique am na aussi lu ñuy wax euh, commerce électronique mhm. mooy les sites d'achat mhm. fii ma toog si jàkka ji mhm. mun naa fi jënd oto euh, jënd fi kër mais sans ma bouger nga ah, ah, waay waay waay internet moom am na xam-xam de te bëri ay bagage de internet mais si waay waay waay internet waaw moom nooy def ba ah non lui il est intéressant suñu internet. ah lu xam ne naa la mécanicien agressé tous les agressé ñoom fii leen ay affaire internet da ngeen a xam ne internet bu ngeen dugg du ngeen dugg. waaw waaye am na xam-xam. waaw xam-xam la am dafa xamul ne internet xamoo ko. wóor ah bon nag nit ku lu xamul rek ci maandu. ah yéen a ngi nag bu leer la wax nag. c'est bon ah c'est bon merci. man de moo ko présenté ba. man de bëgg naa koo xam lu leer la wax nag dañu wax dëgg. waaw li mu wax daal dafa nangoo dégg te nangoo gëm li mu wax ci leeral dafa nangoo leer ba pare xel nangu na ko. xel nangu na ko. Eh, duma tey ko jaale ci mooy farama. waaye yow daa dégg la soog ñoo ¿De léegi li ko indi wax ngay dégg. donc danaa ko muy internet. loolu yéen danaa ko muy internet. borom xam-xam rek yow xam internet yow. borom xam-xam la xoma kan la waaye xam am na xam-xam. Ay, Amigos y amigas, aquí estamos en este instante, a través del tiempo, a través de la República, a través de lo que significa, no solo. ¡Ay! <laughs> Perdón, me equivoqué de onda, compañeros y amigos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hmm. Hmm. Ante ustedes el hermano Chencho Tú hmm. para traje un mensaje del más allá. Para este hermano que se encuentra aquí a mi lado. Hmm. Tú me estás oyendo, mi hermano. ¿Cómo? pël dafa gaaw si ellas, jaas waxal la fi indi para may sama xalitu militaire ma ne xoolal man tey taalu mu génne jaas taalu mu sama nag moo réer mu bugg nga seetal ma ko ci internet hande min tala jaas mi tala hay daal nga. tey au moins tey tey dinaa jubóog yow ndax une faute reconnue est à moitié pardonnée tey au moins tey yaa ngi mouchoir. Ah, walla yaa nu seet ah. sa nag bi nu mu tudd. sama nak bi tan bombe la tud tan bombe ya Dia. comment tan bombe ya Dia. attends main google ah tan bombe comédien tan bombe pitch, tan bombe signal tan bombe nak, ya Yacine Dia la. wala, voilà mu ngi attends. ah ko mooy. ok léegi localisé naa ko. actuellement ni ni ni ni. Hmm. sa nag bi mu ngi avenue Bourguiba. avenue Bourguiba lu ko yóbbu fa. j'ai pas dit Bourguiba. avenue Bourguiba. ah Bourguiba. mais nak boo yéexee tuuti tuuti tuuti. ah ñetti waxambaane ñu ngi ko topp ah. Eh? si boo yéexee tuuti dinañ ko dibi. yaa gam firam fan yaan bi Buenas noches, querido hermano. Buenas noches, hermano. Compañeros y amigos. Aquí estamos en este instante, a través del tiempo, a través de la ah, república, a través de la ano dëggaa daal dama ko ne nag bi waaw ma nga détecté sur internet nag ba mu ne ko avenue Bourguiba Wow, ne ko nag boo yéexee gars yi dinañ ko dibi mu ngay téeli ak a fili. filli yow kii rey yow Yo fi nga ko yóbbu ko sori Bourguiba men ah. xam naa la ma nga soloru Bourguiba di laaj am sama nagbi. Wow. fu mu ne nii comme que nag baa taxaw mm. ab ba pare nañ ko samba samba samba eh. Buenas noches, querido Compañeros y aquí estamos en este instante بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا مباركا طيبا فيه نحن لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والصلاة والسلام على خير البشر mbokk yi نيو دالو سواتي suwaatee سونو فوازير رمضان فوازير لي مي جانغالي موي لي سوسيتي بي دوندو te lu bari gënut ci ñu jël ko critiquer ko xool ci li nga xam ne tey moo nekkoon taxawaayu lislaam li liñ ci jublu yëpp mooy defar rek bii gis nañu mushkilatul masajid problème yi nekk ci jàkk yi di xëccoo ay imaama di xëccoo ay bilaal te nag jàkk vraiment néegub yàlla la képp ku fa war a dem jaamab yàlla rek nga war a doon te jaam bu demee ci néegab buur taxawaayu jaam rek nga war a def waaye di xëccoo ci jàkk yi mel ni am nga ci benn pouvoir di xëccoo ci jàkka yi loolu baaxul تي القران دافني ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا جاكي جاكي يالا لا بول فا جامو كين بول فا وو كين بول فا واني بن بوار لودول بوارو يالا ميغا خامني موكو موم غيس ناني داني خيو اي امام تي يولنتي بي صلى الله عليه وسلم صحابه يمو يارون موي خلفاء الراشدون داني دون داو نيوم كين مستنغو جيتي سامروم غير ريسبونسابيلتي امام نك لا ديسي بو ابو بكرين جيتل مو ديريت عمر جيتل عمر جيتل مو ديريت

waaye lu yàqu lu ne làmmiñ moo wax ba mu yàqu yonent bi nee na cër yi ci doomu aadama yëpp bu ñu xëyee suba teel dañ naan làmmiñ yal nañu yàlla musal ci yow de man ngay wax tey lu tax ñu fanaan kaso waaye man ngay wax lu tax yàlla gërëm ñu sëy dañuy wax ba sëy baax waaye sëy bu yàqu itam dañuy wax ba sëy yàqu kon nañu téye suñuy làmmiñ yàlla protégé làmmiñ daf ko dugal ci diggante ñaari ngaam teg ci ay bëñ walbatiku tegaat ci am siiñ maanaam tegaat ci am tuñ kon balaa ngay yëkkati kàddu na ko posé yàlla nee na waqulu li naasi xusnan bu ngeen di wax ak nit ñi na ngeen wax ak ñoom lu rafet jàng nañu itam salaamun qawlan min rabbin rahim kon daal mbokk yi ñu gàddu suñu làmmiñ di ci wax lu baax te mooy tëndeku bu ñu ñëwee ci juróomeelu bisu ramadan ci naafile yi nga xam ne sopp nañu ko ci ku ko mën gis nañ ni juróomeel bi ñeenti raka la raka boo ne nga jàng fatiha nga jàng suratu sharhi alam nashrah lak sadrak ñet yoon nga jàng suratul ikhlas qul huwa allahu ahad ñet yoon yàlla ñu yàlla nangul nangul leen alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Rixel rue d'excellence punch boisson gazeuse bi gën a Trading ak établissement Mame Balla Ndiaye ñoo leen may seen sketch Abou Bilal man Abou Bilal maa dem màkk bi ma ñaar fukki ak juróom jël sama alal di ko séddale ci koñ bi ku mer ma jubale. waaw ëpp na ëpp na ëpp na ñaar ñu ànd ma dajale. seytaane. tabax jàkka. jàppale juma. jubale xale yi. utal ñuy liggéey. ma ne foo war a toll. fexe ñi di wax fen. def nga di jàppale ñi amul di dimbali ñu yàq. ak jikko ku ko yor laxoon ngaa mën asalaamaaleykum mbok yi tay ñu def Ben experience ngir wan leen gëneelu ceebu Rixel bi ceebu importe bi la bi ceebu Rixel la ñom ñaar ñëpp ñu togg leen ñank tak ndox mi ngeen di gis dañ ko tangal à 37 degrés Celsius muy température sunu biir yaram légui ñu tibbi ci ceebu importe bi tibbi itam ci ceebu Rixel bi légui nak mbok yi ñu taxit lu 30 minutes ceebu importe bi fa mu nekkoon jógu fa ceebu Rixel bi moom rees na bu yàgg lii xew fii nag mbokk yi mooy xew ci sunu biir ceebu importe bi ceeb bu màgget la te lu muy gën di màgget suukar si di gën a bari mën ñoo indil ay jafe-jafe ci sunu wér gu yaram ceebu Rixel bi ceeb bu bees la woyof na digeste na te ci àllu mbaan bii lañ ko béyee ngir suñu jàmm ak suñu wér gu yaram nañu jëfandikoo Rixel Rixel bëggal sa bopp. képp ku bëgg a distribuer ceebu Rixel Punch Punch punch waaw seexlu bi kenn dul gam-gamle su ma wàccee ba coono gu tar dikkal ma sama xel du daj lu dul punch boisson bi ci caf cafka bi wàccee coono tey naatal seen dund yokk leen seen mbégte ak punch orange punch limonade punch cola punch mango punch grenade punch pomme mbaa punch anaco ak teraanga Sénégal gi jëfandikoo leen butéelu 1,5 litre pour kër gi yëpp mba sax seeni gan ci téeméeri dërëm dong ñu buñaa leen 0,25 litre man punch lay seetloo rawatina ci jamonoy tàngaay ñëppay jëfandikoo punch sedd na neex na te sell na punch moo société chez Runambaquet trading molen indil poudre magique sourire muy premier dentifrice en poudre ci Sénégal di Tal Tal seeni bëñ jox xetu mante indil na nitamit ceinture à crème amaigrissante nature glow ngir Senbir, seen wala seen pour gour, ak pour diger. bu ngeen ceinture bi moo ci gën fenen gaaw yaram crème amaigrissante nature glow poudre magique sourire ceinture à crème amaigrissante nature glow à me fait petit Sénégal Kikofi indi société Chez trading centre commercial Touba Sandaga troisième étage Wotelen, 77 093 56 56 ou le 77 093 57 57